waa mbokk yi kon ñu tëjee waxtaan wi fii di wax na téléphone portable day jumtukaay bu bees boo xam ne ñëpp jot nañ ci tey te moom juddoog léegi lii ñuy wax téléphone portable ci boppam ku ne mën ko yor sa loxo di woote kooyu mu ngi toll ci fanweeri at ak juróom ci 2018 bii ñu nekk ci biiram am na ay éléments électroniques yoo xam ne dañoo moom seen bopp ñu def seen bopp mën na doxal seen bopp mën a mën a mën a weccante xalaat ak yeneen téléphones yi nekk ci biti te ñun mën nañ ko bañ a xam kon jëfandikoom bokk na ci li nga xam ne bokk na ci suñu dund goo xam ne mënatuñ cee dellu ginnaaw waaye nag war nañoo tey ci téléphone portable moom yi te respecté li nga xam ne ñi ko defar ñoo ko ñoo ko digle ak organisation yi nga xam ne ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu sécurité ci wàllu wér-gu-yaram lu mel ne organisation mondiale la santé te itam ñi di ko jëfandikoo noo xam ne dafay yem bañ a dugg ci li nga xam daf ñuy jural ñu tàmm ko ba mel ne drogue ci ñun ba mënatuñu koo ñàkk wala muy waral ci ñun ab toogaay boo xam ne nii boo ëllëgee mën nañu jural ay feebar yu ñuy wax maladie chronique feebar yu mel ne ay tension ay diabète yu mel noonu ñi xam ne kon lu ñu baree bari li ñuy laaj mooy téléphone ndax day joxe cancer ak nangam nangam du loolu rek la téléphone mën a indi ci conséquence loolu moo tax ñi tànn waxtaan wi gën koo yaatal ba gën koo xóotal jëmale ko ci accident yi jëmale ko ci explosion yi war a yi mën a indi jëmale ko ci tàmm gi doog a dugg nag ci li nga xam ne mooy feebar yi nga xam ne mën na ko joxe loolu tam lu mel ne cancer ci la bokk jërë ngeen jëf ci waxtaan wi ngeen ñu may occasion ñu mën cee weccante xalaat den sant bu baax